ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد asalaamaaleykum mbokk yi tey la àllarba ñeenti fan ci weeru rakki gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki fan ci weeru novembre ci atum ñaari junni ak nit ak benn ñeenti fan bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la konte ci àllarba ji rafet na ci lépp li ñu ci gën a taamu mooy ko ca daloo li ñu ciy teetere waccandiku mooy ko ca watu wala ku ca tàggoo wala ko ca sangu wala ko ca fóot ñaanuk bis bi yow sunu boroom yàlla na nga ma jéggal samay bàkkaar yàlla na nga toroxal sama saytaane allahuma axfir li bi wa axshi shaytaani xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aji gëm mooy ki nga xam ne nit ñi wóolu nañu ko ci seen alal ak seeni bakkan aji gàddaay mooy ki gàddaay ñaawteef yi ak bàkkaar yi xadis bi ibnu maaja moo ko nettali qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam al muminu man aminahu nnaasu ala amwalihim wa anfusihim wal muhaajiru man haajara al xataaya wa dunub rawaahu ibnu maaja مد سلامك بغير ودي لمن ما لغزاك القديم مد سلامك بغير ودي لمن ما